seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang simila wala fii dañuy faral di léebu na ku sa wujju sëlam doo seet Macky Sall dëggal na ko tëj ji yëral yéenekaay bi nga xam ne ba di si xëtam bu njëkk ñu ne Macky Sall wax na ci mbiru Khalifa Sall waaye nag da ko gën a dugal ci biir pax mi bu baax a baax lu mu yàkkul Khalifa Sall da ko fàtte si jàkkaarloo boo amoon ak waa Benno Bokk Yaakaar nee na benn mandarga rek laa leen jël ci mbiru Khalifa Sall li mu wax ne moom la dugal ci projet lait à l'école dëgg xale yi jël nañ ko xale yi nekk ci ndakaaru yëpp biir buy daw lañ fas yeneen nekkee tudd nañ fi tamit mbirum Madiène Diouf ba tax yéenekaay bii di laas ne est-ce que Madiène Diouf du topp ci xalifa Sall ñu ne ko ràpp ci biir kaso bi Macky Sall nag ma ngay fëgg dënam yëkkatikoo ca kaw a kaw ne ku mën a wax ne am na benn rapport boo xam ne da koo téye te génnewu ko na nga génne rapport boobule lay na tamit ci lu tax si njëli wàdd yóbbuñu ko ci biir kaso bi ci mbiru Fesman loolu de ma ngi ko daan wax ci kanamu leaderu Benno Bokk Yaakaar yi waaye lu mën a amit d'instruction bi mu ngi baral mbiru xalifa Sall ndax nag si jeudi ak vendredi dinañ déglu xalifa Sall ak ñam bokk mbir mu ñu inculpé leen yéenekaay bi de l'Observateur na xalifa Sall ci boppam ajjuma lañ ko fas yéenee déglu enquête na avocat noppi nañ ngir déposé li nga xam ne moo di liberté provisoire waaye nag laata loolu Abdou Aziz Sy dafa amoon kàddu yi mu rotaloon di wax ne kii di xalifa Sall dafa def ay ñoom tete nag ñaan na Macky Sall pour mu bàyyi ko Khalifa Sall ci biir yéenekaay bi La Tribune mu ne ñaanuma benn yoon njekk sëriñ bi baal naa la ko ñaanu ma benn yoon njekk dama bëgg rek dëgg jib Barthélemy Diaz ci biir yéenekaay bi nga xam ne moo di enquête ne xalifa deful benn erreur déedéet Al Amine xalifa deful benn erreur ci biir yéenekaay bi di La Tribune Sonko ak ñamu ànd ak ci coalition nee nañ lii di mbiru xalifa Sall du lenn lu dul opération bu am lool nga jël kenn koo xam ne sa adversaire la au lieu nga xeex ak moom ak ay armes conventionnelles nga song ko bëgg ko dugal ràpp ci biir kaso bi loolu lan la xanaa ragal waaye nag mbiru xalifa Sall yi jaxase na lool APR ba yéenekaay bi di enquête ne ay wax yu rëy rëy la wax ci mbiru. Khalifa Sall ci biir yéenekaay bi du l'observateur mbay Ndiaye na ba tey jii la ma waxoon dañu ma ci politique laxasu na ci mbiru. Khalifa Sall waaye ci biir yéenekaay bi nga xam ne moo di enquête Abdou Aziz mbay di conseiller bu président de la République na Mbaye Ndiaye def lu dul di chantage Sada Ndiaye bokk ci PDS ci biir yéenekaay bi la ko di nee ci nguurug Macky sàll loi bi nekk lu fi ñëpp déedéet loi bi daal dafa taxaw wet ca lañu jëm ndax nag démb tàngoon la lool yéen kay bi Le Quotidien ne Jakarta maan yi maanaam ñi dawal Jakarta ñoom ñoo doon xeexoo ak force de l'ordre yi lakk commissariat ba lakk këru commissaire bi lakk tamit trésor bi ba tax La Tribune na Kolda tàngoon na jëpp démb ba armée bi sax mu mujj intervenir Vox Populi jox kàddu tey ji Serigne Mor Mbaye psychanalyste la mu ñuy xoolal société sénégalaise bi lam wax nee naa réew mi ay tojekat ñoo fi bari te boo tojee garaawul ci réewum Sénégal rax ci doole nee na jeunesse bii noppi nañ ci xaru ndax nag sonn na lot nañ lool ñu ne ko Macky Sall mu ne accident la accident dëgg la rax waaye mënoon nañu am keneen ku ko gën jërë ngeen jëf dëgg bu ngeen di jëlee suñu am seen site Dakar Matin point com incha allah